asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñu ngi leen di ziar di am mbégte tey di dimanche 14 mars atum 2021 ñu ngi fii ci kër xalif général Alaaji Thierno Moule Sow di le xalif général des jinne di la l'empereur di le maréchal di le bourreau de dëmm di le roi médecine tradition du monde the king of the king donc le xalif général euh, Saliou. Euh, mooy door a mooy door a egg si noonu Ngone. waaw macha allah Moustapha comme ni nga ko waxee rek xalif général kuli euh, médecine traditionnelle du monde le king of the king la maréchal la solution le bureau des dëmm tubaarikàlla macha allah le bureau des vampires et des sorciers tubaarikàlla macha allah mooy doog a yegg si nii ci buntu këram macha allah def oto bu rouge bu baax macha allah. di waajal patients yi jóge fu nekk ci àdduna bi di ñëw ndax moom ndax jëmmam ndax li ko yàlla may ndax kiiraamaam li nga xam ne ne tamit macha allah xalif général daal yegg si na mi ngi waaj di dugg si mbooloo mu rëy di ko di di ko xaar ci biir kër gi Saliou waaw macha allah mbooloo mu bëri di ko xaar ci biir kër gi xalif général des jinne comme ni ñu koy defee ci saa su ne daal di ñëw ah macha allah dafa mel ne comme li ma gis démb rek moom laa gisaat toujours habillé par madame Sow euh, macha allah la reine waaw euh, yaayu yaayu prince Moulé macha allah démb def na bi nga xam ni li nga xam ne ne mooy mooy mooy bleu bi tey tamit mi ngi euh, nii macha allah génn ci bees bu baax général ne yàlla da euh, koo baaxal ki nga xam ne yàlla da koo teral ki nga xam ne li yàlla joxoon yananti yàlla Souleymane tubaarikàlla macha allah da koo jox muy l'empereur mm. muy le king of the king muy la solution le gentleman le meilleur de sa génération mi ngi ñëw nii ci Cambérène macha allah en face VDN 3 bi ñoo ngi nii xalif général day ji ne. kon l'empereur macha allah. sëriñ bi de bu jàllabe bu bula la def. waaw tey jàllabe bu jaune la sol. toujours te démb waxoon nañu madame Sow moo fi jaar. madame Sow moo fi jaar tubaarikàlla ah madame Sow moo fi ah, jaaraat démb mu def bleu ciel bu baax macha allah tey tamit madame saw moo fi jaaraat macha allah daal di def benn beige bu am solo macha allah madame Sow tey tamit moo fi jaaraat daal di habillé ki nga xam ne mooy xalif général des jinne macha allah muy nekk grande dame boo xam ne dafa soutenir ki nga xam ne mooy ji Alaaji Thierno Moule saw borom këram macha allah mi ngi noonu di dugg si si clinique bi macha allah waaw. kon defe naa ni loolu am na solo nga. Mhm. dégg ci biir. Euh, waaw ci ci biir a ngi noonu di riir ci biir a ngi. ci riir yëngu comme nu ñu amee. waaw ci biir mi ngi sens ci biir yëngu. macha allah comme di ko def. Mhm. Euh, l'arrivée du khalife général l'arrivée du khalife général le kii nag the king of the king. toujours ma la moo jàpp mboose kumba jigéen. tubaarikàlla macha allah moo waaw ah, waaye nag moo jàpp ji nga xam ne jinne yu mag yi nga xam ne ñoo fi wàccoon mhm. di ruube ci àdduna bi mhm. tubaarikàlla macha allah mhm. mooy le king of the king tubaarikàlla macha allah muy muy muy defanteeg chaque jour jinne yu mag yi nga xam ne ñoo fi nekk tubaarikàlla macha allah di ruube ci àdduna bi ni lay demee ci saa su ne jinne yaa ngi nii kalla macha allah takku ba dëgër sànq ruube bi tàng na sànq ruube bi metti na sànq sens na nee nañ xalif général des jinne tey bu ñëwee duñ ko may dara ma ne ko ah wàcc leen tubaarikàlla kalla allah jinne bu ko mës a affronté vaar nga jëm suñu waa ji nee naa ko sa maam mooy Sunjata Kayta tubaarikàlla macha allah Sunjata Kayta ay sa maam moo jëflante woon ak ñay ba waaye yow yaa jëflanteeg segg ba tubaarikàlla macha allah yow yaa nekk nekkoon xale tubaarikàlla macha allah di wër xam-xam di jéggi ci àdduna bi di dem fu ne di wëri ji xam-xam ci àdduna bi fekk yàlla subhaanahu wa taala am na li mu def sa yaram muy nelaw waaye yeewoogul tubaarikàlla macha allah yaa xuusoon yaa ñaajoon yaa jàlloon tubaarikàlla macha allah ba jinne segg ba affronté la nga affronté ko duma daa di daan affronté dem sa yoon ba jinne segg yu mag yar tamit wuyu si la ñu xam ne kii mooy jàmbaar kii mooy la king of the king kii mooy ndaanaan naan macha allah ñoom ñoom ñoom ñoom bintu yaanu koli ñoom caamaanu koli ñoom dama ko tubaarikàlla macha allah ñoo la wuyu si si kii mooy borom kiti saaya borom bola yaa saaya ngi nii suñu waa ji borom kun fa yakun boo ne kun yàlla ne fa yakun tubaarikàlla macha allah jinne yëpp a ngi taxaw ñu jógee fu ne ci àdduna bi ñëw jàkkaarloog yow hmm. kon nag ah tey dina sens dama bëggoon laaj sëriñ bi benn question waaw bu am solo am solo xam nga sëriñ bi papaam Mamadou Aliou Sow. waaw yàlla yàlla yokk ay leeram leeram. moo mm-hmm. doon ñaanal sëriñ Mansour si borom daara ji ji. tey nag coon sekk. waaw dafa wàccu liggéey. tubaari kàlla macha allah fi ñu demoon defi reportage. bàyyam doon jëflanteeg Thione Seck ay information yu ñu yu ñu yu ñu tey. Mhm. ñu ne ñu euh, comme ñun waa TMS TV lañ. ci Thierno Moule Sow la ñu bokk. Mhm. ñu ne waajur bu góor muy Mamadou Aliou Sow. Mhm. da daan ñaanal Thione sekk bu baax am ñu ko dëggal foofu. question boobu nag laa bëggoon laaj sëriñ bi tudd nañ fa sa waajur ba ne da doon ñaanal ki nga xam ne tey moo wàccub liggéey. macha allah macha allah di la jox sa wàccuwaay. waaw. auzu billaahi mina shaytaani rajim wala xawla wala xuwata illa billaahil aziim gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mbokku taalibe yëpp tey nag dañu am naqar ak tiis bu dal ci kaw sénégalais yi euh, mooy Thione ki nga xamante ne icône la ci musique sénégalaise macha allah moom nag daan na jëflante ak sama papa man minante ak moom mais daan na jëflante ak suma papa El Hadj Mamadou Aliou Sow daan na ko ñaanal loolu nag tey laa ko waxagum sax ci ci ci ci média musuma ko wax. <clears throat> waaw ñoo ngi koy jaale ñëpp di ko jaale njabootam yi ñoom waali euh, ak ñoom Aline di ko jaale ñëpp di ko jaale Sénégal di ko jaale adduna bi yëpp yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljanna. waaw macha allah moom nag daan na jëflante ak sama papa alaaji Mamadou Aliou Sow ba macha allah mus na ko jox benn yére sax bi nga xamante ne doomu taal la léegi léegi nii rek sama yaay moom ma doon wax ne mu ma expliqué loolu mu ne ma sa papa Thione sekk joxoon na ko benn yére bu bu musaan soxla yére bi danaan jox ma yére bu ma Thione Seck joxoon macha allah xam nga ñoom it ay kilifa lañu dañuy bëgg di ñaan dañuy bëgg ñu leen di ñaanal ay musluwaay ak seen i mbir kon nag ñoo ngi koy jaale di bokk naqar ak tiis bi. yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljanna vraiment nit ku baax la dégg nañ seeday rafet na vraiment am nañ naqarlu lool tey sax naruñu woon ñëw mais mbooloo mi dañoo bëri fii loolu moo tax ñu ñëw mais ñoo ngi bokk naqar ak tiis bi yëpp ba ñu ba ñu yëgee loolu tamit ci la ñu wax waa TMS TV nañu déplacé wu ñu dem macha allah euh, ànd ak euh, tiis bi ak naqar bi ak ñëpp macha allah. jërëjëf euh, sëriñ bi kon góone. waaw macha allah mi ngi noonu am na solo macha allah comme waxee ci saa su ne waaw. ki nga xam ne mooy papa Mamadou Aline Sow doon waaliw doon waaliw waali yaabee la ca maam sa ta koy jël nag waaye tubaarikàlla macha allah waaye kii di papa Mamadou Aline Sow tubaarikàlla macha allah man heure bu ma ko estetee am na ki nga xam ne dafa jege sës rëkk ci con sekk daf ma koy wax naan ma kon kii bu toogee di faj kon loolu war naa mën a nekk ndax papaam danaan jëflante ki nga xam ne ne mooy con sekk kon nag macha allah le xalifa général wàcc nga mi ngi nii mbooloo mi ngi jóge fu ne comme ni ñu koy waxee ci saasu ne tubaarikàlla macha allah pomme de terre du Angleterre Moustapha xam nga ne mbooloo mi tey ñu ngi nii macha allah tey dimanche bi tey kër gi dafa ala daw me fu nekk la nit di jógee ci àdduna bi ndax xam-xamam ne la nit di jógee àdduna bi ak li nga xam ne ne moom mooy dooleem lii nga xam ne mooy kattaanam te xam ne yàlla moo ko dooleel subaana ma suñu sëriñ bi macha allah li yàlla joxoon yonent yàlla si dellusiwaat na la jox na ko kon nag jaaraama Thierno Moule Sow jërëjëf kon ngoone ba léegi ñuy ànd ak ñun sur la TMS TV di télé bi nga xam ni mu feeñal lépp lu nëbbu di euh, làmboog njëriñ. Mhm. kon Alseyné ngi nii xam nga moom mooy directeur kër gi. donc euh, sëriñ bi mi ngi nii di door a egsi. Mhm. kon mu mel ni sëriñ bi aussi. Mhm. fa waajuram bu góor jaaroon foofu la teg tànkam. dem na ba ba romb sax. ay waajuram romb ay maamam kon defe naa ne loolu am solo la aussi ñu préciser ko waaw macha allah comme fi waajuram bu góor toll woon dafa ñëw moom romb foofu ndax waajuram bu góor daan na faj daan na def ay ñaan di ko sekk ñi nga xam ne ñoom ñooy ay kilifa di ko sekk ak ay ministre ay député yoo xam ne dañoo nekk ci dëkk bi macha allah nag waaye nag moom jàppul jinne waaye macha allah la ca maam sëta koy jël waaye nag moom ñëw na ba nga xam ne weesu na ki nga xam ne mooy maamam sunjota ñëw na ba weesu ki nga xam ne mooy maamam kuli tengalaak yoro tengalaak nii maa tengalaa waaye nag ñëw na nag ba nga xam ne romb leneen ñu ñëpp li nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ko joxoon yenant yàlla Suleymaan muy waxloo ay jinne di leen tuubal di leen dugal ci diine l'islam tubaarikàlla macha allah li ñu bañaloon suñu maam aadama tey moom jii lañ ko nangul kon Thierno Moule saw kon yaakaar naa du ci ay caaxaan kii mooy la solution kii mooy le bureau des dëmm tubaarikàlla macha allah dëmm yi nekk ci àdduna bi moo leen di capturer fii di leen téye ñuy wax te coow du jëb kon nag boroom xam-xam a ngi nii borom wërsëg a ngi nii borom sutura a ngi nii lépp a ngi nii kon nag Thierno jaaraama Thierno Moule saw ma yokku ci rek euh, jaaro yi nag euh, defe naa ni démb ba léegi. Mhm. Euh, patient yi ñu ngi ñu sonal du ñu laaj. Mhm. defe naa ni jaaro yi aussi ngoone. Mhm. nekk na loo xam ni aussi. lu am solo la euh, di jaaro yi mhm. euh, nit ñi ñi ngi koy commencé di laaj bu baax a baax mhm. xam nga jaaro yi nag euh, mooy li ma la wax xam nga ku yor ay jinne moo dara. macha allah ku yor ay jinne moo dara dangay toog ñu lay fekk si. waaw tubaarikàlla macha allah da ngay ubbi buntu milliards yi di ñëw millions yi di ñëw tubaarikàlla macha allah ay jinne ku ànd ak ñoom rek yaakaar naa moo dara ci àddina waaye nag bag yii dafa yëngal jamono. bàgg yii tubaarikàlla macha allah dëkk ba koy waxtaane nee naa leen sëriñ bii mooy la solution mooy xeex li nga xam ne mooy ndóol ci àdduna macha allah nee na man kase du ma toog ay milliards di ma wuyu si man kase du ma toog ay millions di ma wuyu si damaa bëgg monde bi képp koo xam ne ne yaa xam daqaar ngay jaay yaa xam solom ngay jaay yaa xam chauffeur nga yaa xam looy doon maçon nga looy mënta doon damaa bëgg ci biir liggéey boobu ngay liggéey si na la wërsëg wuyu si na la xaalis wuyu si na la alal wuyu si kon nag jaaraamaa Thierno Moule Sow sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di waaw macha allah hmm, kon sëñ bi ñu ngi lay nuyuwaat di la ziar di la jox sa wàccuwaay euh, beneen question bi comme dugg si nga ci sa biir bureau euh, il faut que euh, ñu laaj la aussi ci jaaro yi parce que nit ñi moom la ñuy waxtaanee fi mu ne nii jaaro yi mi ngi fi yeneen yeneen ñi ngi fi waaye jaaro yi dafa ñëw rek gën a li ñuy wax yokk cere yokk ñeex ñu buggoon rek nga nga gën ñu leeralaat ci ci ci jaaro yi parce que nit ñi ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy laaj boobu ba léegi. waaw macha allah dañuy sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñu ngi kontaan ci waa temes TV ñoo ngi nuyu mbokk adduna bi yëpp vraiment di gën a jaalewaat rek macha allah Thione Seck vraiment yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljanna euh, yal na yàlla bàyyi saraxam ci njabootam lu yàgg vraiment tey Sénégal ñëpp vraiment am nañ naqar ak tiis man sax bugguma woon ñëw vraiment mais mbooloo mi dañoo bari ci kër gi jinne di ruube di def lu ne. moo tax ma forcé ñëw waaye tey ku ma gis xam na ne sama yaram bi maanaam damaa tayal daal parce que lu dal Sénégal yëpp moo ñu dal mooy naqar tiis waaye na nañu sant suñu borom bu baax a baax gannaaw bàyyi na fi njaboot te vraiment njabootam ñëpp ñoo ngi koy ñaanal tey ñëpp bokk nañ naqar tiis bi vraiment ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare aljanna di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi macha allah di kontaan bu baax suma ma benn taalibe sax euh, mooy euh, su ma benn taalibe soxna ki ne macha allah dafa affaire bi rek di jooy ndeysaan loolu la ma boroom këram wax léegi nii monsieur Diallo macha allah kon nag di sant suñu borom baax di julli ci yonent bi léegi nag jaaro yi nu ko soxna Ngone waxee euh, macha allah jaaro yi wërsëg lay day indi wërsëg ndax jaaro yi jaaro yi dafa nekk li nga xamante ne ay secret yi ma ci def amul benn jaaro bi nga xamante ne actuellement ci àdduna bi am na fi amul ndax nag xam ngeen ne jinne dafa bari secret te xam ngeen ne jinne day maye alal xam nga alal jinne yi dañ koy maye. léegi nag am na am na secret yi nga xamante ne moom laa def ci jaaro yi jaaro yi nag fii nga ko mun a amee ci man si man rek la mën a génnee mu mun la jëriñ boo ko jëndee feneen piraat la ci man kese nga ko mën a génnee parce que damay jël sa turu yaay jël sa turu papa jël sa tur liggéey ko maanaam def lu may def tëj ko ci biir jaaro bi ba pare am lu ma tëjaale ci jaaro bi li nga xamante ne loolu moo lay indil wërsëg da ngay am wërsëg maanaam bu dee da ngay jaay socc macha allah wërsëg bi dana la fekk foofu bu dee dangay ngay jaay ndox wërsëg bi dana la fekk foofu jaaro bi nag macha allahu su nekkee musoo laal million boo amee jaaro bi di nga am ay million bu dee bu dee da nga am ay million musoo ay milliards boo amee jaaro bi di nga am ay milliards jaaro bi spécial bi nga xamante ne dama koo togg maanaam dama jël sama temps tëju di ci liggéey di ci waxtaan ak jinne yi di ci def sama baatin bi nga xamante ne macha allah ñu dem ba mu pare nag ci la daal di génn jaaro bi nag moom du yomb yombul nag parce que nag lu baax du yomb loolu foog nit ñi xam ko prix bi nag ku ci woote rek incha allah dinañ la wax prix bi ñaata la ndax nag lu baax du yomb loolu damay foog nit ñi xam ko bu yombee kon nag ah du amati njëriñ du amati sens ñëpp mënuñu xëyandoo am ñëpp mënuñu xëyandoo tamit ñàkk jaaro bi li ñu la ci mën a wax Moustapha dafa am ay mbóot yi ci nekk man mii macha allah du ma du ma namm dara man lu ma bëgg day ñëw lu ma bëgg ci xaalis day ñëw maanaam du ma namm xaalis secret yooyu nag yi moom lañu tëgg ci jaaro yi nga xamante ne wax naa la lépp looy def boo amee jaaro bi macha allah dana la ubbi dana la aar tamit dana yokk sa wërsëg dina la indi néew ma nag da ngay jël jaaro bi rek suba suba nga for xaalis déedéet mais ci liggéey bi ngay def. da indi dangay am. te am am boobu moo gën a baax am am boobu da ngay maanaam day ànd ak gudd fat ak wér. macha allah instant bi nag ñi ñaa ngi woote ñu bari ñi ñaa ngi commandé ak ñi ñaa ngi woote di commandé jaaro bi. Mm-hmm. macha allah nag na ñëpp ut parce que day dimbali njaboot. su nekkee ne musoo am ay million boo laalee jaaro bi da am ay million bu see na da bu dee na danga am ay million boo laalee jaaro bi da nga am ay milliards mm-hmm. na mul dara ndax jinne yàlla daf ko def jox secret am secret wërsëg defe naa ne ñit ñi xam nañ loolu te macha allah jinne yi ñu fi yor yi nga xamante ne dañoo yor loolu dafa bari kon nag jaaro bi macha allah jamono ji ñi ñaa ngi woote téléphone yi moo ngi toj mm. ñi ñaa ngi woote yombul nag mm. yombul de waaye nag boo wootee dinañ la wax lan ñaata lay weccee ko parce que li nga xamante ne boo ko amee dina la indi dangay am defe naa ne loolu loo ko jënde jar na ko mm. macha allah mm. jërëjëf euh, sëriñ bi kon defe naa ni suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi defe naa ni li sëriñ bi wax euh, leer na lañ amul leen luñ ciy waxaat xanaa kon ñu jox saaliw rek euh, mu commenté suñu mbokk yi nga xam ni dañ waan dañu dégg nasaraan ak également anglais saaliw gën ko leeral ñu gën a comprendre Alors merci beaucoup euh, Donc euh, comme Moussa Fall l'a si bien expliqué donc avec euh, notre collègue euh, Ngone, donc nous sommes avec le Khalif général des djinns, le roi de la médecine traditionnelle qui est là bien assis sur sa donc chaise royale donc en donc tout simplement aujourd'hui euh, en ce dimanche donc 14 mars 2021 donc vous voyez le Khalif général des djinns qui a changé de style euh, donc depuis hier vous le voyez avec un style particulier donc un style arabisant donc hier il avait un truc bleu, aujourd'hui il en a un autre qui est jaune, donc c'est extraordinaire. Lui, il change de facette, donc il a beaucoup de facettes. Donc aujourd'hui, donc il est là. Il ne voulait même pas venir, il l'a dit parce que bon, il ne se sent pas à l'aise à cause de cet événement malheureux qui nous est arrivé aujourd'hui, donc le décès de ce grand chanteur John euh, Balagosek. Donc il a eu à faire euh, donc un témoignage vivant à, l'endroit donc de ce chanteur vraiment très grand chanteur qui a eu vraiment à participer donc aujourd'hui parce que ces chansons étaient en train vraiment d'éveiller donc les, les Sénégalais qui, qui l'écoutaient. Alors donc c'est pourquoi ils ne voulaient même pas venir. Mais vu que les gens sont là et ils viennent euh, d'importe quel, euh, de, beaucoup de localités, tout simplement pour se faire aider par lui, c'est pourquoi il a décidé tout simplement de venir malgré lui pour essayer donc tout simplement euh, de, régler leurs problèmes. Donc c'est ce qui se passe actuellement sur la TMS est en face du terrain donc euh, il vous a dit aussi que les bagues sont disponibles dès que vous voulez donc les avoir il suffit d'appeler sur le numéro donc c'est par commande on va tout simplement mettre votre nom là-bas le nom de votre maman et ainsi de suite pour mettre tout simplement euh, ce qui est normal pour avoir cette bague donc des bagues qui sont uniquement délivrées par le khalife général des djinns le roi de la médecine traditionnelle ladies and general Friday, you know, the 14th of March 2021. You see then the Khalif General of the Jinn just coming with a new style. since yesterday, a He wouldn't like even to work today because of the disease of this very, great uh, singer who is John Balagosek. But you see, uh, many people are here waiting for him. That's why he came to, help them. He was just talking about the rings. The rings are available whenever you need them. Just call us, on this very number and you can have them because you have to order them. We'll be having name there, the name of your mother, and then make it happen. So these kind of rings, you can only have it with Chernomole So, the Khalif General of the Jinns, the King of all the Kings. Just to remind you that you're following TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is hidden. And we are here in Camberen, face to the football ground of Jamano, and face to the VDN3, Mustafa Fall. jërëjëf euh, Saliou kon ni leer na nañ euh, su la TMS TV bés bu ne rek ñu indi leen ay wax ci waajuru la xalif général di Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram wax nañ aussi ci jaaro yi sëriñ bi indi na ci ay leeral yu am solo Euh, mais également tey ngeen gis ni dafa nekk journée bu espécial nga xam ni euh, chanteur bu mag moo wàccu liggéey euh, TMS demal na leen fa nag di ngeen gis vraiment reportage bu am solo bi nga xam ni presque kenn amu ko parce que kuy artiste rek TMS jëla la tey ba ci le lutteur Balla Gaye TMS jël na ko jël nañ Fallou Dieng jël nañ Jimi mbay jël nañ Ousmane Gange jël nañ les frères gisee jël nañ Fallou Dieng jël nañ Pape juuf jël nañ Youssou Ndour koo xalaat ci artiste rek tey TMS jël na la ñu def tey liggéey bu am solo bu muccub ayib xam naa ne buñ ko dugalee euh, di ngeen gis ni euh, TMS euh, li tax sëriñ bi def ay financement ay millions investir ci TMS defe naa ni du caaxaan moo tax aussi équipe bi aussi saa su ne rek dañu mobiliser wu ci événement yi nga xam ne bu amee tey defoon nañ leen tey liggéey bu muccub ayib saa su nag nii lay amee sur la TMS TV di tele bi nga xam ni moo feeñal li nëbbu làmboog njëriñ teg leen seen loxo fii la ci TMS. waa macha allah comme ngeen koy gisee patient yaa ngi noonu di yéeg tubaarikàlla macha allah malade yaa ngi nii ñëw ànd ak seen i mbokk ànd ak seeni i parents comme ni ma koy waxee ci saa su ne ñu jógee Thiès ñu jógee Touba ñu jógee gis naa fi ñu jógee Gambie jóge fi ñu gis ñi fi ñu jógee Mauritanie ay Fuuta fu nekk ci àdduna bi la nit ñi ñëw ndax seen soxla fu nekk ci àdduna bi la ñuy ñëw macha allah ngeen dégg jinne boobu nga xam ne ne bi mu fi yegsee ba tey mi ngi ruube macha allah jinne yaa ngi fii ruube ci suba ba tey ndax ñoom nii lañ koy defee ci saa su ne ndax dee jinne mooy li nga xam ne moom la ko yàlla may macha allah mooy jinne bi jàkkaarloog moom ci àdduna dangay wàcc li nga xam ne ne moom la ko yàlla defal moom kese la ko defal ci àdduna ay nit ay jinne ay doomu aadama di jàkkaarloo yow ngay daanu macha allah ñi ngi ruube soo ba tey bu ñu ñëwee waaye nag ak xalif général nee naa leen lu mu metti metti ak lu mu tàng tàng sedd lay mujjee jinne bu ko affronté lu mu metti metti lu mu tàng tàng vaar nga jëm macha allah patient yaa ngi noonu macha allah di yéeg ñi nga xam ne fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi waaye nag patient yëpp ngeen di gis tamit du jinne moo leen yëkkati patient yi ngeen gis yëpp du jinne moo leen yëkkati am na ci ñoo xam ne dañ fiy ñëw ngir seen soxla dañ fi ñëw ngir euh, seen liggéey dañ fi ñëw mbir wàllum blocage dañ fi ñëw pour wàllum tukki ñi ngi fiy ñëw pour wàllum jaaxle macha allah fu ne la ñuy jógee ci àdduna bi ñi nga xam ne tamit dañoo am ay esprit yu leen topp macha allah ñii di ay jinne ñii di ay dëmm ay rab ay lépp ñoo xam ne dañ leen a topp macha allah ba gis si ñu jógee cees ay xale yi nga xam ne toog nañ lu yàgg muy mag ak rakk ñoo xam ne waxuñu Ndiaye jógee ba Thiès ñëw pour ñëw jàkkaarloo ki ngeen xam ne ne mooy kilifa pour mu wax leen li ngeen xam ne ne euh, loolu moo dal xale yi allah ma gis fi ñeneen ñu jóge extérieur ay Italie ay France macha allah gis naa fi sax ku jóge Amérique macha allah mu ñëw pour li nga xam ne ne mooy liggéeyam li nga xam ne moom mooy wàllu wér-gu-yaramam macha allah ak wàllu am-amam di ñëw di ut si tamit li nga xam ne ne mooy bàgg yi mooy bàgg miracle yi nga xam ne ne moo xew ci jamono léegi ni ñu ngi ciy wax ak ki nga xam ne mooy ji Alaaji mu la saw bàgg yoo xam ne dafa yëngal jamono bàgg yi nga xam ne dafa yëngal àdduna mu nekk bàgg yoo xam ne nekkul bàgg yoo xam ne ay rokki mi rokki la déedéet ndax bu ñu déggee jinne rek ñu bari dañ yaakaar ne boo nee jinne jinne bu la mayee loolu rokki mi rokki la wala jinne bu la mayee nekk loo xam ne ne jinne may na la ko kon nag dañ lay laaj sacrifice wala dara allah ceenn mu le saw jinne yi nga xam ne ne ñoom la àndal mooy jinne yi nga xam ne ne macha allah dañoo tuub dugg ci diine l'islam macha allah dara ñoru leen rek pour adduna bi dara ñoru leen pour askan bi moo tax nag suñu waa ji borom kun fa yakun indi ay bag yoo xam ne tubaari kàlla macha allah munoo ko amee fenn lu dul fii kër allah mu Moule saw macha allah ku la ko jaay rek foo la ndax bàgg bi day ànd ak sa turu yaay ànd ak sa turu papa am yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ koy soxla yow mi nekk ci yow laaj la ko ñu bëgg koy sox ci bàgg bi yaa xam ay million nga bëgg boo nekkee million millionnaire dalay yokk def la milliardaire boo nekkee milliardaire nag tubaarikàlla macha allah foo nekk day ñëw yaa xam maçon nga yaa xam tôlier nga yaa xam loo mënta doon tubaarikàlla macha allah looy laal moo gën ak loo laal ak ubbeeku jinne du la jege dëmm du la jege vampire du la jege sorcier du la jege dara du la jege tubaarikàlla macha allah lépp mi ngi ci biir Thiaroye kon nag Saliou asalaamaaleykum rahmatullahi taala merci beaucoup Ngone merci beaucoup donc nous venons de faire monter les patients donc en ce dimanche 14 mars 2021 vous voyez les patients qui sont très bien installés donc les patients comme j'ai l'habitude de le dire euh, nous viennent d'importe quelle localité tout simplement pour se faire soigner pour se faire aider par le Khalif général des djinns le roi de la médecine traditionnelle qui lui est dans son bureau attendant tout simplement le moment en train vraiment d'attendre même avec impatience le fait d'être reçu par le Khalif General des Jinn. Alors, ladies and gents, dear followers of Tennessee, we have just, uh, made up the patients, that are coming from every kind of areas, every kind of localities, just to be held, I mean, just to be held or to the Khalif General of the Jinns, the they sitting in the living room. the Khalif General of the Jinns is inside his office, just a little bit to receive all the patients so as to be helped by him. So thanks following us on TMSCB, your favorite channel. We'll be coming back with you if ever we have somebody who is possessed by jinn and who is just talking about things. We'll be, you know, just, uh, you know, commenting for you. Thanks a lot.